wa in adamta ndem saxal nga qabla xasrin ci njëkk takkusaan arbaxan ñeent yarhamka kon yërëm la dul jëlaali borom màgg ga ku nekkal muttabihan di aji topp boo saxalee bala ngaa julli takkusaan rek naafila ñeent ràkka ñaar sëlmal ñaar sëlmal kon day danga am yërmande yàlla day junju addis bi wax ne rahimallahu mra'an salla qabla alxasri arba'an yal na yàlla yërëm koo xam ne julli na ñeent ràkka dawalal ko takkusaan ñaar sëlmal ñaar sëlmal ñaanuk yonente bi yal na yàlla yërëm jooju lu am lay doon lu nangu lay doon te it yërmande yàlla dafa yaatu lool lool lépp xaj na ca biir moo tax kon bu ñu nee ku saxal balaa julli takkusaan naafila ñeent rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal dana am yërmande yàlla bul defee ne am yërmande yàlla dafa tuuti déedéet yërmande yàlla lépp xaj na ci biir wa man yuxaafiz ku wattoonteeg adduhaa yoor yoor fa innahu naka moom yaxfazuhu dana ko wattu almawla buur ba wa yu'li te muy kaweel ba te muy yëkkati sha'nahu mbiram ma idi ngir tafi dana dikk moom julli yoor yoor fil xiyaamati ci bis penc su ma taqul topp dana wax ne yaa rabbi yow sama boroom zaaki fulaanu diwa mooy diw maanaam mooy diw sàngam xëpp yàlla na nga may lawoo ñeel ko alwursoo la àgg ga li annahu ngir naka moom xafisan yi wattu woon na ma fi duniyaa ci àdduna faxfadhu yàlla na nga ko wattu haahuna fii fa faasa te mu texe sa'yan ci jëf wa in tudayihaa ndem na nga koo sànk nag taxul mu wax ne yaa rabbi yow sama boroom daa kii day dayaxani sànkoon na ma am si démb fa dayix yàlla na nga ko sànk li daa ngir lii yoor yoor moom nee na lu mat a fonk la koo fonk yàlla fonk la sàmm la yëkkati la yëkkati sa mbir ndax ne moom yoor yoor ci boppam bu bis fencee day sotti ku jëmm waxanteeg suñu boroom ne ko suñu boroom diw mii day ba nekk àdduna dama fonkoon lool di ma julli di sàmmoonteeg man kon nag maa ngi lay ñaan nga dimbali ko àggale ko ca àgguwaay ba su ko defee ñaanam googee nangu yàlla defal jàmm boobee loola su fekkee su dee nag ku daa sàggane jullik yoor yoor jullik yoor yoor day waxanteeg suñu borom ne ko sa jaam bii day ba nekkee àdduna dama sàggane woon lool kon nag tey jii nanga ko fay loola sàggane ko moom itam bul ko faale wa kaw nuhaa ak nekkam moom julli yoor yoor ak sara di ëpp min samaanin ci juróom ñetti rakka karihahoo sib na ko baxdu dawil adhaani lenn ci waroom xel yi te xul fi ngir wuutee mag moom ma koy def sunnata zil mahaali sunnas borom kaweya alayhi yàlla na doole nekk ci moom azka salawaati liwaal yi gën jaa seel li tere li kilifa ga wal aali ak ñooñ ña wa saxabi ak saxaaba ya wal ummati ak xeet wa jamihan boole seen maa faaqa li fekk kawe na du rus din boroomu jub mot yaxun kuy aji topp yàlla dattoo yaa ni boroomu mbewte yoor yoor moom nee na bëgguñu ku ko ëppale juróom-ñetti rakk ak loo sawar sawar ndax ëppale ko juróom-ñett day mel ne juyoonteeg sunna li mu tudd nag yonante bi mi borom kawe yi moo tax mu ñaan yàlla dolli ko gën jaa selli teraanga mook ay mbokkam ak saxaabaam yi ak mboolem xeetam wi li fekk nga xam ne ka jub te yooyu ndigal ma ngay féete kaw kay bew ak a xëtt ndigal te loolu mooy am faw kon yal na yàlla saxal gën jaa seeli teraanga ci yonante bi ak ay gaayam ak xeetam ñoom ñëpp faawu faawu wa in yakun ndem dafa nekk fi leeli ci guddi fal ijhaaru kon biral ga moo gën aw kaana wala mu nekk fi nahaari ci bëccëg fal israaru kon yelu ga takk-takk bi nee na mooy gépp naafila gu ñu def ci guddi lañ ci gën a taamu moo di biral boo xasee sëlmal timis rek nag yaa ngi ci guddi gi ba ci naafila yi ngay naafila ci gannaaw timis nga biral ko wax ko ca kaw moo gën wax ko ci suuf gépp naafila gu ñuy naafila ci bëccëg nag dañuy sopp ku ko yelu wax ko ci suuf wa karihoo siib nañu alkalaamu wax bu xayda subuxin ci gannaaw suba ila tulooxi samsi ba fenku jant xul waxal ne axraa rawante naag almanaam nelaw gannaaw boo jullee suba dañoo sopp nga toog rek di tudd yàlla mbaa ngay jàng alquran baa bu amee wér di ko def te bañ a wax waxi àdduna bañ a nelaw su fekkee da ngaa gëmentoo gëmentu ba nga xam ne nag doo xam li ngay wax boo doon jàng ka sikara yooyu kon saye boo nelaw ba noppalu ndax nga mën a xam la ngay wax waaye daal gannaaw julli suba moom daamuñ fa lu nuroog waxi àdduna bu jant bi fenk daal moom defa moytoo wax waxi àdduna wa in tusalli ndem na ngaa julli asubha suba fil jamaahati ci mbooloo tumma jalasta topp nga toog zakiran mbir mu ngay aji tudd yàlla li taaxati ngir ak topp ila tuluxi samsi ba fenku jant kunte kon nga nekk mis la man di kem ka nga xam ne xadd xajj aj na waa atamarate mu omra fii daaka zamani ci joojee jamono ne boo jullee julli suba julli mbooloo ba noppi nag toog rekk di tudd yàlla ba jant bi fenk ba naafila dagan jant bi fenkee rek nag ba yëkkati ku ñetti meetar ci sa xoolu bët rek foofu la waxtu daganu naafila tàmbalee nga julli nag ñaari rakka da nga mel ne aj nga xumra nga addis ba sax nam ko indee da ko caa feddali ne am nga aj ak xumra yu mat yu mat yu mat baamu ko yetti yoon man salla subha fi jamaahatin wa jalasa fi musallaahu yadkurullaha xataa tatluha shamsu wa salla rakxatayni kaana lahu tawaabu xajjatin wa umratin taammatayni taammatayni taammatayni loolu kon lu rëy rëy la ndax ajak xumra niñ baree coonay yaram ak coonay alal loo xam ne soo ko defee rek daldi am tuyaabay yaar yooyu loolu lu mat a fonk la boo nekkee nag ci biir foo xam ne xool jant bi dalay jafe bu dee suñ béréb yi moom waxtu wañ nodde woon salaatu boo ca tegee rek waxtoo genn wàll dana fekk jant bi fenk ba yëkkatiku lu mat ñetti meetar ba naafi la dagan fa xaafis na nga wattoonteeg mooy na nga sàmmoonteeg almawla buur ba bi saaxatay naxaarin ci yaari waxtu yu bëccëg kafaaka kon mu fegal la maa la nga xam ne baynahuma nekk na seen diggante minit du tiraarin ci loru nee na kuy sàmmoonteeg fàttaliku boroomam ci suba ngoon faw rek boroomam di ko fegal lépp luy lor ci diggante suba ngoon xëy na taamu gi ñu taamu saxoo tudd yàlla ci gannaaw julli suba ak gannaaw julli takkusaan te it yooyu yaar ñooy waxtu lépp ci wirde yi moo tax ñuy sib ka nekk ca sikkar soose mbaa wirde woowee ngay ñëw di ko nuyu di ko jox loxo am na ku ne daa fekkan sëñ bi fam toog ci jàkka ja ci waxtu suba bëgg koo jox loxo nuyu ko sëñ bi ne ko gannaaw julli suba day ba jant bi fenk dañ fee sib saafu xante mooy dañ fee sib nuyoo joxante loxo ne ko sax gannaaw julli suba ak gannaaw julli takkusaan daal nuyoo fa joxe loxo lu ñu sib la lu may nag koo xam ne day kuy door a dikk ne ki gan gu agsi bëgg a nuyoo kooku moom mën naa nuyoo joxe loxo ki net lool dafa mel ne daa bokkoon ci naar yi way yomb leen lool mu daal di koy wax ci bayit yi ne inna alxadima wa huwa fi mihraabi masjidihi subhan bilartiyaabi qad qaala id aradtu an usaafixa qabla tuluuhi tukrahu lmusaafaxa tasaafuxun bacda salaati subuxi walxasri bidxatun hanahli lmilxi illa liqaadimin ataa bacda salaa wadaa lixizzi ddiini xattaabun azaa ba tey sax mboolem gannaaw julli farata yi buñ koy door a sëlmal kenn ku ney def tudd yàlla yi nga xam ne mooy topp ci gannaaw julli farata ga la gën mooy kenn ku ne ñu bàyyi ko mu def loolee ba àggal ku koy nuyu am yitte ci moom nag door a agsi ci moom nuyu ko àggali sa yitte xir googu sax ci nuyoonte geeg saafu xante gi mën naa tax nga rawaleel ka ngay nuyoo ko saafu xanteel yiwu bare bari dog lam doon def ci xeetu tudd yàlla goo xam ne loola moo doon waxtoom ndax yooyu ñu wax nañ koy def ci gannaaw boo sëlmalee farata boo ko ci sësalee defe nga ko nañu ko taamoo am ci jagle ya nga xam ne moom lañ ca taamu boo ko ci sësalewut nag gannaaw ba nga def ko day mel ni rek ku tudd yàlla noonu waaye du àgg ci nag am daraja yi sës ca jullik farata ga nañu ko ca taamoo woon waxtala foo wute nañu fi nafli ci naafila hal toolul xiyaami ndax yàgguk taxawaay ba afdalu moo gën aw kutru sujoodihi wala barik ay sujootam almaraamu moo di càkkuteef la wa baaduhum lenn ci ñoom faddala gënal na daali wal baaxdu ñeen ñi gënal daali tol kullu te képp minhum ci ñoom mustadillun aji am tegtal la faxusan na nga jàpp booy naafila dañoo wute ci ndax nga yàggal say taxawaay su ko defee say ràkka du bare noona ndax looloo gën am li gën koy booy ngay gàttal taxawaay ya su ko defee say ràkka bari say ruko ak say sujjóot gën a bari yooyu yaar lañu wute ba xam lan moo ca gën soo xasi xam na yow ràkk yi ngay julli na muy toll ba noppi te doo ko weesu moom kon boo ca mënee boole yàggal taxawaay ya mooy gën li ñuy wax kay mooy koo xam ne moom la muy julli da koo takk ci ay waxtu tàmbalee waxtu sàngam yem sàngam baa xamul daal la muy julli nu muy toll kooku moom dañuy nattable muy yàggal ay taxawaayam su ko defee ay rakkaam du bari ay rukoom ak sujjóotam du bare noona ndax looloo gën wala muy gàttal ay taxawaayam su ko defee ay rakkaam gën a bari ay rukoom ak sujjóotam gën a bari waa kay foofu la wute gi nekke mu wax nag seeni tegtal mooy kenn ku nekk fa mu sukkandiku ba wax la mu wax fa kasratu sujjóodi bari sujjóot ga tukk siru dana baril inxitaata dunubina sippikuk sunuy bàkkaar fii xabari lësi ci xibaaru ka nga xam ne axaata peeg na xam-xam id ngir almusalli aji julli ji xaytu maala fu mu fi jenge li rukkoo jëm ci rukkoo aw li sujoodi wala jëm ci sujood daa qudoohin mbir muy borom ak toroxlu wa xushuuhin ak ragal yàlla tanaa farat kon tasaaroo zunuubuhu bakkaaram ya min bayni aatiqin ci diggante pàq lëxoo ñeel ko wakkati fin ak mbagg fawsan yem naa texe lëxoo ñeel ko addis ba daa wax ne kuy julli bu sëggee sujjóot mbaa mu sëgg rukkoo ay bakkaaram day wàcc di ruti ruti dox diggante pàq bi ak mbagg mi mu mel ne kon lu mu gën a bari ay sujjóotam ak rukkoom rek bakkaaram yi wàcc gën di bari ñooñu foofu lañ sukkandikoo ba wax ne ngay gàttal taxawaay yi te baril rakka yi su ko defee rukkoo yi sujjóot yi gën a bari moo gën foofu lañu sukkandikoo wa jaa dikk na fil xabari ca hadiis ba anna afdala salaatina naka gën ji sunu julli alxunóotu mooy yàgg ga an tutaw wala te moo di bu dee fi yàggal ko ñi wax ne li gën ci jullig naafila mooy yàggal taxawaay ya dañoo sukkandiku ci hadiis ba wax ne afdalu salaati toolul xunóoti dañ ne toolul xunóoti maanaam mooy toolul xiyaami yàggug taxawaay ba moo tax antu taw wala jooju mu daaneel way wi da koy firee baatub al xunóotu ñooñu kon dañoo sukkandiku ci hadiis boobu wax ne li gën ci julli mooy yàggug taxawaay ba ak it yonante bi moom la daan def ndax ndegam dawul weesu daanaka fukki rakk ak benn mbaa boog fukki rakk ak ñaar dolli ca wetar te daana dem ba ay tànkam di newi mel na ne kon yàggug taxawaay yaa tax ña waxoon nag wax bu jëkk ba wax ne di gàttal taxawaay yi ndax ràkka yi bari sujjóot ya bari moo gën hadiis ba ñu sukkandikoo moo di xaleeka bi katarati sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajda illa rafaxaka allahu biha daraja wa xatta biha xanka xati'a faslun li ab dog la fi sawmi ci koor amma siyaamu ndaal koor fa huwa moom min afdali ma bokk na ci li gën ci li nga xam ne talabta sàkkoo nga mar daatan ngërëm bi ci ci moom wane xaman ak xéewal li ànd na fil jannati ngir naka nekk na ci àjjana baaban buntu laa yaqibu bob du tàbbi fii ci moom siwaa ahli siyaami ndare ñooñ koor faxtasib na nga sàkku tuyaaba dafa jàll ci koor bokk na ci ñim la waxoon ne la nga di ko baril di ko fecclee say waxtu mu ne koor day moom bokk na ci yi nga xam ne ñoo gën a mën a maye ngërëmul yàlla ak xéewali yàlla ba àjjana sax am na bunt boo xam ne nee nañu woorkat yi rek ñoo cay dugg waaye ku bokkut ak ñoom doo ca dugg ba tey hadiis ba nee na asawmu junnatun minan naar koor day aar nit ci sawara hadiis ba nee na it kullu amali bni aadama lahu illa sawma fa innahu lii wa ana ujaasi mu ne doomi aadama jëf ju mu jëf mel ne ne jëfuma ba mu des koor koor moom maa ko moom te maa koy fayal saa bopp ak hadiis ba wax ne li kulli shay'in baabun wa baabul xibaadati sawmu wa nawmun naasi kullihim xott la illa nawma saaimi fa innahu ibada mu ne leen lu ne am na bunt buntu jaamu yàlla nag mooy koor mu ne nit ñi nelaw yi nelaw yépp ay caaxaan lay doon ba mu des nelaw yi ku woor ku woor moom ay nelawam ak jaamu yàlla la nee nañu koor dafa nekk ñetti xeet kooru niti kese yi rek mooy bàyyi lépp luy dog koor ni ki lekk ak naan ak yu ko nuru ak koorub ñaraañiku ci nit ñi te mooy ña cey boole téye seeni cër bañ caa mooy yàlla waaye nag am nañu féete kaw li kaw mooy ñi nga xam ne bu ñu wooree seen xol ci bopp la ñuy wëlbati ci lépp lu amul solo aj ko ci yàlla seen boroom dara bañ caa génn seen boroom wa kaana nekkoon na malikun malik imaamuna madi sunu ilimaan yu diimu di saxal min kulli shahrin ci wépp weer sawma xaddi xarfi jiimin woor limub arafu ñett mooy rekk woor limub ñetti fan fa kaana te mu nekk fii tadhi fiha ci ak fulam lil xashri ba ci fukk bi fadlihi ci ngëneelul yàlla jàlla màgg na ka saw mi dëhëri di mel ne ki woor jamono jépp dañuy sopp weer wu ne nga woor ca ñetti fan mu ne al imaam malik daana ko saxal weer wu ne mu woor ca ñetti fan loolu nag boo ko defee te yàlla nangu ko day mel ne woor nga sa jamono jépp-jépp ndax xam nga weer moom mënta weesu fanweer te ndegam suñu boroom boo defee benn bu baax dala koy fayee fukk kon ñetti fan yi fanweeri bis lay doon bin la koy fay loolu nag boo ko defee weer yépp woor ramadan boole ci saxaw ko ci sa dund day mel ne kon woor nga sa jamono jépp-jépp moo tax mu ne Malik te daan saxal weer wu ne mu woor ca ñetti fan te ful gi yàlla yi ful benn bu ne ba ci fukk suñ ko seetloo kon day mel ne loolu moo woor jamono jépp-jépp benn lañu Malik moom nee nañu daan woor kumte yi kumte yi mooy fukk bu ne ba ci jëkk niki bu ko wóoree ne tey la benn benn fan ci weer yi mu daal di koy woor su amee fukk ba ca topp di fukk ak benn nga xam ne moo njëkk ca fukki ñaareel yi mu daal di koy woor bu amee ñaar fukk ba ca topp di ñaar fukk ak benn nga xam ne mooy ba njëkk ci fukk yi ci mujj mu daal di koy woor waaye teewul nag moom noo fexee rek ba woor ci weer wi ñetti fan rek mu daal di baax wara raboo xemem loo nañu fii sabaxatil ayaami ci juróom-ñaari fan ña te ani maa ngi jublu al ula ya nga xam ne daa dooru danañu wëndeelu ku laxaamin ci mépp at am na juróom-ñaari fan ñoo xam ne nee na dañoo tasaaroo ci biir at mi di fan yoo xam ne ñoo sopp ku leen woor kon nag na nga fexe ba xàmbi leen te boo ci àggee rek woor leen ngir yàlla faa un ab juróom ñeenteel li dil xijjati ñeel weeru tabaski kasu rajabin ak ñaar fukk juróom ñaar ci rajab jiimu muharramin ak ñetteelu fanu tamxarit wax sub na nga limaale yaa ahoo fukkam ak fukkeelam la bëgg wax wakkaxu dil xidati ak ñaar fukk juróom ci weeru diggu tabaski yë chambaana ak fukk juróom ci baraxlu waxaa u dil xijjati ak juróom-ñetteelu fanu weeru tabaski xub jàppal bayaanan ak biral weeru tabaski bis ba ci juróom-ñeenteel ñu ne subaru tabaski mooy bisu arafa sopp nañu ku ko woor ba ko jiitu muy bisub juróom-ñetteel ba ñu koy wax yow mu tarwiya moom it sopp nañ ko ko woor man nga ni sax weeru tabaski moom dana ko wax ci kanam tuuti dañoo bëgg rek bu teroo nga tàmbalee woor sësale ba ñu ne suba la tabaski nga door a bàyyi ndax juróom-ñeenti fan ñooñu daal dañoo ràññiku lool lool ci jëfal ci yàlla nu mu rëye ak nu ko yàlla fonkee rajab taamu nañ ca ñaar fukki ba juróom ñaar maanaam buñ amee ñaar fukki juróom benn ba ca topp nag di ñaar fukki juróom ñaareel taamu nañu ku ko woor tam xarit daal ci gën a taamu ndegam doo woor weeru yépp mooy ñetteel ba ak juróom-ñeenteel ba ak fukkeel ba weeru diggu tabaski moom itam sopp nañ nga woor bis ba doon ñaar fukk ak juróomeel boo amee ñaar fukk ak ñeent ba ca topp ñaar fukk ak juróom mooy bañ taamu nga woor ko ci diggu tabaski Shaabaan weeru baraxlu taamu nañ nga woor fukkeel baag juróomeel maanaam boo amee fukk ak ñeent ba ca topp di fukk ak juróom taamu nañu lool ku ko woor yooyu mooy yi nga xam ne ay fan lañu yu tasaaroo ci biir at mi dañ bëgg nga farlu ci woor leen fa kullu man képp koo xam ne yadduwumu dana sax fii saw mi haaj seenu koor parce que yenaalu xasat naa am kullama lépp loo xam ne yaruwumu dana ko sàkku ku saxal woor fan yi ñu la wax ngir yàlla bu soobee yàlla daal lépp lu bëgg ci yàlla dana ko am wa naqaloo toxal nañu ani nabi jële ci yonante ba al mustafa bari buñ tànn salla yàlla na dool tedd nga alayhi ci moom man yàlla mi nga xam ne hadaahu jubal na ko wastafa te mu tànn ko fada ila ay ngëneel la xaañeel fan yooyu le xajas naa yooyu lott nanu al aana léegi xan xaddiha wali seenug lim xunaa fii forum na nga sàkku idd maanam saxalu koor fan yi mu wax la wax ne jële nañ ci yonante bi mu wax ci ay ngëneel yu bare bare yoo xam ne mën nu ko indi fii ndax kon way wi day gudd ba ëpp waaye nag saxal ci woor fan yooyu rek daldi jot ca ngëneel yooyee war a xaboo xemim loo nañu fii sardi chahri rajabin ci toftale weeru rajab wa misluhu am kemam la muharramun tamxarit fal tarxab na nga xemem watishu dil hijjati ak juróom-ñeenti fani dil hijja aydan ba tey wa kazaliki nii jamihu chabaana mboolem weeru baraxlu faraaxi na nga sàmmoonteeg almaqada jàppukaay ba weeru rajab muy ndeyu koor ak weeru tamxarit ak weeru baraxlu wu ci nekk am na fan yum ci ràññi woon waxan leen ne taamu nañu leen ku leen ca woor mu ne nag soo ko mënee dañoo bëgg sax rajab jëpp rek nga woor ko sësale bañ caa dog benn fan tam xarit noonu baraxlu noonu boo delloo ca weeru tabaski ba tey juróom-ñeenti fan njëkk ña dañoo bëgg nga tegale lépp woor ko bañ caa dog benn benn doon naa ko wax léegi wattafaqoo dëppoo nañu fi fadli xaashuraa ci gënug xaashuraa xalal lës yi ci ba nga xam ne yu duxaa def na ko wooye bi taasuuxaa ci taasuuxaa mu ne nag maase nañ ci ne woor bisu fukkeel ba ci tamxarit moo gën woor bisu juróom-ñeenteel ba su fekkee ne mën ngaa boole yaar yépp woor moom muy biñ ne tey la juróom-ñeenti fan ci tamxarit ak ba ci topp muy fukkeel looloo gën waaye bu fekkee ne benn rek nga ci woor saye boo def ko bisu fukkeel ba ndax maase nañ ci ne moo gën bisu juróom-ñeenteel ba di kaw nit yi ngir mu nekkam ak sara di gën a bari min fu ci moom ajuran ci ab yool ba asbitan na nga saxal sawmal jamihi woor mboole seen ak dëxëra ci jëpp jamono maase nañ ci ne daal woor bisu fukkeel bi moo ëpp tuyaaba woor bisu juróom-ñeenteel ba nga farul nag ci woor yépp yépp rek ndax sa tuyaa ba gën di bari wa asbatoo saxal nañu asya ay yëf fii ci moom tun xal yooyu def na leen toxale xan sayid li anaami jële ci sangub mbindeef ya faltasta amiloo na ngeen leen jëfandikoo salla yal na dol tedd nga wa sallama te doli woolu xaalihi ci moom assamadu yàlla mi jublu ci aajo wal aali ak ñooñ na wa sax bi ak saxaaba ya waman ak ña nga xam ne xadd ursidoo jubaleef na leen te saw mun moo di koor salaatun ak julli silatun ak jokku bokk waxusulun ak cangaay sadaxatun ak saraxe taqlimu zufrin ak lewi we kuhlun ak tusngalu iyaadatul maridi ak seeti aji tawat zawru xaalimin ak siyaari aji xam wa masu ra'sin ak raay bopp li yatimin ñel ab jirim saalimin bu di aji mucc qiraatul ikhlaasi ak jàng lixlaas muy xul huwallahu alban junni yoon wa sabata saxna taw si xunaa sunu yaatal al iyaali ci njaboot ga wafa dikk nañu bay mbir bu ñuy fukk ak ñaar ba tey nee na tam xarit am na fukki yëf ak ñaar yoo xam ne des na ko ca def ba ci jëkk mooy woor bis ba muy bisu fukkeel ba moom lu ca ràññiku la jullik bisu tam xarit gën gaa néew ñaari rakka